fi dajale rek tey mooy lancé activité Dagu Kër Samba Kane gis nañ ko xawoon na tardé population bi xaaroon nañu mais macha allah tey si leadership suñu ministre nga xam ne bu mu ñëwee daf ñu instruire ñu góorgóorlu mu gungee ñu jàppale ñu am oreille attentive jot instruction ci président pour ñu démarrer ko bépp blocage bu ñu mës a am. madame la ministre débloqué na ko ba tey fu ñu toll nii macha allah sant yàlla bu baax tey bi mu ñu mayee fekkee ñu ñëw fii ci Kër pour lancer travaux d'Aki. Nous muy domaine agricole communautaire domaine agricole communautaire comme vous le savez, le président de la république depuis 2014 pour euh, promouvoir l'entrepreneuriat agricole Nous mbay mi nga défis milieu rural ak emploi des jeunes parce que bii final bi ak bii bu njëkk bi yëpp euh, emploi des jeunes là. donc euh, président de la république bi mu amay xalaat 2014 2016 ñu réaliser dag bu bi parce que daggu Kër Samba kan dafa bokk ci lëwu dag bi ñuy dag yi ñuy wax première génération nga xam ne c'est euh, ci la bokk Sédhiou moom nañu inauguré en 2016 kam ci la bok ak keur Momar sar bi nga xamante ni bu ci yalla andé fi fan yu new inshallah dinañ ko inaugurer liggéey la boo

parce que président de la république ci li ñuy wax équité territoriale daf ko soxal soxal ba nga xamante ne euh, bu sañoon zone euh, département bu nekk dina am dagam waaye jàpp nañ ñi ci nañ jëm bu soobee yàlla parce que dag bi euh, buñ ci jógee yeneen i dinañ leen inaugurer inshallah activité bi dina fi am euh, mbay parce que dafa am lo xamanteni ni euh, li ñuy wax cœur de Dak déjà. cœur de Dak moy li nga xamanteni moy centre d'incubation bi formation dina fi am mais mbay mi dina fi am mais au-delà de tout ça euh, fi dafa nek zone bo xamanteni ni élevage daf fi dox donc ñun dañu bëgg tenter expérience bobu pour bay suñu waar ci li wax.